dañu xëy suba teel suñu ñaari doom dee te ay nit ñoo ko sabablu ay nit ñoo dogal dee googu du yàlla yàlla day rey mais sabab bi si ay nit la jóge mi waa Sénélec parce que waa Sénélec ñu indi poto yi teg ko fi mu rey ñaari xale donc pour man tey un dañu war a fexe porte plainte Sénélec ba pare wan ko ne li muy def nii tegul si yoon mais mu la indi poto yi sax di liggéey Grand Yoff te waa te mairie bi sax xamul ne sax yaa ngeen ay poto si Grand Yoff kooku li booy wax yëpp dëgg la li ñu li ñu bàyyi sax mooy Sénégal dañuy yabaate état bi moo yab waa Grand Yoff moo leen joxul cër respecté wuñu dañ vérifier ñun su fekkee poto yi c'est uniquement pour waa Grand ñoo ko lañ ko war a liggéeyal ñu xool ñu ko positionné woo defar liggéey mu jeex gis nañu aussi jeunes yi sont prêts à que aussi est que ba message rek parce que d'après message yi ñuy lancé on peut s'attendre à beaucoup message pour ñoom dañu mer. Ah. waxu mer la ñuy wax mais suñu kilifa yi nekk fii man maay mer. Ah. mais grand bi moo ñu yar ñu ñëpp moo ñu formé ñu ñëpp moo ñu teg si ñu ñëpp donc ñun xale yi grand yi kay xamu leen yàqu lu may ñaan booy moo ñu gën a calmé wu. Ah. métti na mm-hmm. ku si ñaar doom suba teel métti na dara mënu ko fay. taal fayu ko jox la un milliard fayu ko maintenant li ñuy li ñuy moytulu mooy fexe ba li ñu bëgg ñun li ñu bëgg ñu def ko te on fera le maximum ba li ñu wax ñu def ko mais daal li ñuy daal may na gars yi apaisé